mbokk internet yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen ci la gën a fees ci mbirum osmaan Sonko lañ koy daal di doore ginnaaw bi nga xamante ne Sadio Bassi Faye ki nga xam moo nekk nag foofee di juge ca Ziguinchor daal doon jox osmaan Sonko nag ndam ngir ñu jox ko nag vice président am loolee nag ginnaaw ba léegi gisaguñ ca dara France daal di xëddeen tey jii nag beneen dogal boobu bees daal di wàcc kuréel bi ni wuyoon nag kuréel bay wuy ci turu Sénat. daal di jox dëggati Ousmane Sonko di wax ne nag euh, ñi war a jox Ousmane Sonko fii sa parnasam nan ko ko daal di jox ndaxte kat ak ak yellee fam la ngir ñu mën koy jox nag li nga xamante ne bii moo di fiche parrainage am boobee loolee nag xibaar la boo xamante ne bii léegi la daal di rot kon nag fi nga xamante ne bii moo di kuréel bii di Sénat ñoom nag ñi ngi xam ne nag ne kii di Ousmane Sonko nan ko daal di jox nag li nga xamante ne bii moo di fiche parrainage am ñu daal di koy parrainel ca sensé loolee nag ginnaaw bi nga xamante ne juge bii di Sabassy Faye joxe woon na ndigal loolu ngir ñu def ko ginnaaw booba ba léegi nag lankef lan defoon kenn jox ko ko waaye ni que tey jii nag ñii nag daal di nañu jug daal di wax ne nan ko daal di jox fii c'est prenant